mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nii nag euh, kër sëñ bi bu sëñ Ibrahima Seck ku a xam ne ni gàmmu sëriñ Madické sëriñ Jibril moo ko moom tey bisu sëñ bi sëñ Jibril la sëñ Madické wax na ko fépp moo tax at mu jot bàyyi ji bi waaj. ñu ngi nuy ñu fi teew ñëpp. di ci jiital bàyyi Seexu Thiénaba. di ko ziyaara waaye di ko ndokkeel. sëñ ñaaxa sekk nuyu sunu maam Baye Sëriñ ñaaxa sekk di ko ziyaara di ko ndokkeel waaye di ko ndokkeel ak di nuyu sunu maam maam aramaan sekk di ko ziyaara di ko ndokkeel waaye di ko ndokkeel jël nuyoo teg ko ci loxol Baye Jibi jël nuyoo yëpp nag teg ko ci loxo Baye Jibi mi ak lépp lu mu jaboote ak lépp lu mu jaboote wàcce nuyoo ci sëriñ Mamadou Seck Roqaya wàcce nuyoo yi ci Baye Sëriñ Mamadou Seck Roqaya ak lépp lu mu jaboote ak lépp lu mu jaboote njabootu sëñ Ibrahima eh, wàcce ko ci njabootu sëñ Ibrahima Seck sekk Serigne sëriñ Xaar. ak lépp lu maam Yoro Penda Seck njaboote. nuyu Serigne Ali nag Serigne Ali Seck. di ko ziara. di ko nuyu Serigne Serigne Serigne Aliou. di nuyu Serigne ko ndokkeel. nuyu yëpp. nuyu nag njaboot gépp sëriñ Alpha teg ci suñu uh, loxo nijaay sëriñ Alpha Mbaye sëriñ Talla di ko ziyaara moom tamit. di sëriñ Pape Mor Gueye. di ci nuyu El Hadj Pape Mor Gueye. ak njaboot gi yëpp. ak njaboot gi yëpp. sëriñ Njaga Maxtaar. sëriñ Njaga Maxtaar Seck. historien ñu ngi koy nuyu. ñu ngi lay nuyu. sëriñ Ibrahima Cissé bu Baay Alaaj Taala. sëriñ mu Baay Alaaj Taala Cissé. sëriñ Baar bu Baay Ibrahima Ndiaye. sëriñ Baara Ndiaye mu Baay Ibrahima Ndiaye. sëriñ Yoro Souaré ak waa Cawaare gépp sëriñ Jibrilu Puy bu Jobaas Cheikh Jibrilu Puy bu Jobaas ak njaboot gi mu àndal nuyu nañu ñëpp njaboot gii di njabootu bàyyi Cheikh Jibrilu nag jël nañ nuyoo bi jooxal ko ci seen bàyyi yi fi toog jël nañ nuyoo bi du jooxal ko ci seen bàyyi yi fi toog liñ leen di ñaanal rek lañ leen di ñaanal liñ leen di ñaanal dong lañ leen di ñaanal nuyu sëriñ Pape mii nuyu sëriñ Pape Abdoulahi Mboup xam ne jotaay bii mu toog xam ngeen ni jotaay bii mu toog. jotaayu Baye Ousseynou Mboub la. jotaayu Baye El Hadj Ousseynou Mboub la. moo ko daan def. Hmm? definu rafet. moo ko daan def definu rafet. moom itam mu am fayda topp ci loolu di ko doxinu rafet. moom moom fayda topp ci doxinu di ko fa dox doxinu rafet. nit nag soo amee alalam. ko cee gën a jeexal ca alal ja. la ko cee gën a jeexal ca alal ja. mu toog ci ni man maa ko moomal sama bopp. mu toog ci ni lii moom maa ko moomal sama bopp. yoon wi nag yoonu Canaba Kajoor la. yoonu yoonu Canaba Kajoor la. di gàmmug Baay Jibi. di gàmmug Baay Jibi. Serigne Madick Seck wax na ko ñëpp dégg na. Serigne wax na ko ñëpp dégg na ko. moo tax at mu jot mu faboo nii. moo tax at mu jot Baay Jibi faboo nii. ànd ak ay rakkam yu mu seqal sëñ Ibrahima. ak ay wëllëre yi mu seqaloon sëñ Ibrahima. ak ay wëllëre yi mu seqaloon sëñ Ibrahima. ak njabootu boppam. ak njabootu boppam. te ñun ñu ngi ci biir njaboot googu. te ñun nag ñu ngi ci biir njaboot googu. bàyyi ji bi ñëpp a ngi lay sant. bàyyi ji bi ñëpp ngi lay sant. ñu ngi lay gërëm. ñëpp a ngi lay gërëm. ci taxawaay yi. ci taxawaay yi. bi fi ma dikkee sekk jógee ba léegi. bi fi sëriñ ma dikkee jógee ba ni lii ngay def. lii ngay def da ko daan def ci kanamam da ko daan def ci kanamam lépp di rafet lépp di lépp loo waroon seq ak sëñ Pape Mourtada lépp loo waroon seq ak sëñ Pape Mourtada dem nga fa jullee fa ak moom ajjuma dem nga fa jullee ak moom ajjuma la nga war a seq ak moom lépp nga seq ko ak moom la nga war a moom lépp seq nga ko ak moom kon loolu ñu ngi la ciy sant loolu ñu ngi la ciy sant Baye seex Thiénaba tam Baye seex Thiénaba lii itam dugal na ci loxoom lii dugal na ci loxoom ak ñaanam ak ñaanam ndax nee na demal nga ubbil ma yoon wi ndax nee na la demal ubbil ma yoon wi fépp fu ma war a jaar fu ma war a jaar ak lu ma war a wax ak lu ma war a wax ak lu ma war a jëf lu ma war a jëf soo demee na mat sëkk soo demee na mat sëkk xam su ngoonee damay ñëw rek xam ni bu ngoonee man damay ñëw rek tamponné ko tamponné ko daal di wàññee wàññeekuwaat baleen ndax yaa ñu fa toogal ndax yaa ñu fa toogal yaay suñu lépp yaay suñu lépp nit nag nit nag la ko la ko la ko may la mu am la ko may la mu am dam am fay day téye ko day am fay day téye ko nit la ko may la mu am. la ko may la mu am. day am fay day téye. day am fay day loola. ku xool ni jotaay bi tëddee. ku xool ni jotaay bi tëddee. nga xam ni dara manqué wul. nga xam ni dara manqué wul. mag ñi nii rek lañ daan toogee. ngi nii. Baye Talla Gueye ngi. moo daan toog ci wetam. moo daan toog ci wetam. photo bee ku ko gis. photo bee koo gis. xam ni ma ngi ci biir taxaw. xam ni ma ngi biir taxaw. Baye Talla xaaral nga ne. Baye Talla xaaral nga le. ku ko gis. ku ko gis. xam ni mi ngi nii toog. xam ni mi ngi nii ah, waa cawaare yaa ngi nii. gis ku leen gis xam ni sëñ Daawuda Sekk nga ne la toog xam ni sëñ Daawuda Sekk nga la toog Baye ne la Baye Alaaji Taala toog ah, Baye Ibrahima Ndiaye ngi nii Baye Ibrahima Ndiaye ngi toog kon dara manquewul oh, kon dara manquewul Baye Ousseynou Mbuuba ngi nii Baye Ousseynou Mbuuba ngi kon lu manqué ci jotaay dara manquewul ah? kon pas-pas yooya. nee na pas-pas yooyu. moom la ñuy feddali fii rek. moom la ñuy feddali fii rek. moo moo moo waral jotaay bi. loolu rek moo waral jotaay bi. ku nekk mënoon ngaa xëy def sa gasoil. ku ne mënoon ngaa xëy def sa gasoil. ndax seq nga ko sëñ ma dikke. ndax seq nga ko sëñ ma dikke. ci ci ci wàllu gune. ci wàllu gune. wante nii na ci sa ginnaaw kilifa. waaye nekk sa ginnaaw kilifa. ànd ak moom sagal ko. ànd ak moom sagal ko. te fii ku fi toog bëgg nga ñu defal la loolu. te fii ku fi toog bëgg nga ñu defal la loolu. fa tabaarakallah. fa tabaarakallah. moo waral jotaay bi rek. kon bàyyi ji bi yàlla na yàlla yóbbu ci. bàyyi ji bi yàlla na yàlla yóbbu yeewu ci jàmm na yàlla la yàlla na yàlla suturaal la yàlla na yàlla sagal la ci yoon yàlla na Ahmad Daam sëñ Ahmad Daam dafa am dëj fële ca Ndar daa dëj ca Ndar wante nee na ci yoon wi di waaye ne mi ci yoon wi ñëw sëñ Alassane Ñaan sëñ Alassane Ñaan daa ay bagage yu muy toppatoo am na ay yu muy toppatoo ay sérité yu yu muy yóbbaale at mu jot heure bi la koy lijjanti mu nga Cees di la xaar daayira sëñ canab ibrahima daayira sëñ canab sëñ ibrahima ñu nga cees foofu di la ña nga cees di la xaar fa tabaarakallaa fa tabaarakallaa sama nijaay sëñ jóob joor sama nijaay sëñ jóob joor sama nijaay sàmba ak sama nijaay sàmba ñu ngi ci yoon wi di nga leen dab di nga leen dab kon koo fi gisul rek kon daal koo fi gisul nga xam ne dafa am lu muy lijjanti xamal ni daa am rek lu muy lijjanti sëñ aas borom digal sëñ aas borom digal xam nga yaram wa daa sutlaante yaram bi dafa sutlaante otom batam waaw bàyyi ji bi ne ñëw na fi biig oto batam atobaat daa am lu ci am tuuti pan rek wante ñëw na fi biig waaye ñëw na biig waxtaan ak moom waxtaan ak bàyyi ji bi jàppale ko ci gasoil bi noonu la daan def noonu la daan def moom ak sëñ Adam Baye Taala moom ak sëñ Adam Baye Taala kon yàlla na ci yàlla def yoon wi yàlla na ci yàlla def jàmm suñu jógee rek bu ñu jógee rek bàyyi sëñ Assane génn ñaanal leen ñu dem ñun su ngoonee ñu dem bu ngoonee nag ay 5 heures ay 5 suñu départ suñu départ dinañ yëglu dinañ yëglu lépp nekk benn lépp nekk benn fekk la fa la fa waroon bàyyi sëñ bi fekk la fa waroon bàyyi nga defal ko ko yow defal nga ko xam ne su ñëwee rek xam ne bu ñëwee rek day nuyoo day ñaan ñaan génn génn allahu laa ilaha illa hu yuxlifu laa taxusu sinatu wala nawmu lahu ma fi samawati ma fi lard man sa yasto min doon ila bima saa wa saya kursiyu sawata wala yuhudu insu wala asi salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad loolu nag am na solo kon Baye Jibril a ngi noonu macha allah waaw Baye Jibee ngi noonu di yëg tabarakallah mi ngi noonu mi ngi noonu Baye Jibee ngi noonu mooy gàmm gi nag tabarakallah mi ngi noonu waaw ñu fas yéene nag bu ngeen ko incha allahu taala tabarakallah ila kajoor yàlla ñu yàlla yóbboog jàmm ñu yegg ci jàmm te lépp lu fa gàmm gu musa fi jaar yàlla na ko gii dàq ëpp koy xéwal barke sang bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu ila kajoor kon ay sëñ bi sekk sekk sekk dama xool ba xam Pa waajal rek pap pap asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi nii nag euh, kër sëñ ji bi bu sëñ Ibrahima Seck ku ne xam ne ni gàmmu Serigne Madické Serigne Jibril moo ko moom tey bisu sëñ sëñ Jibril la sëñ Madické wax na ko fépp moo tax at mu jot bàyyi jibi waaj ku mu am ak ku mu xam rek woo na la incha allah ngir nga gunge ko ngir bis booba fa tabaarakallaahu gën a mën a taaru ñi ngi foofu nag génn nañ fa macha allah tabaarakallaa euh, bàyyi jibee ngi ni ànd ak ku mu war a àndal ca maam yaag ca bàyyi ku daan ànd ak moom rek njabootam taxaw nañ ngir ànd ak moom tabaarakallaa loolu nag lu am solo la Euh, waaye nii ñu leen koy gis nii ngeen koy gis ci image yi bàyyi Cheikhou Thiénaba bàyyi Serigne Assane Seck moo fas yéene ñëw ñaanal ko fa la ñu nag euh, départ ila Kajoor incha allah kon bàyyi jibee ko wàcc na mi ngi noonu bàyyi Cheikh Jibril mi ngi noonu wàcc na fas yéene na tàllal loxo yi Cheikhou Thiénaba bàyyi Serigne Assane Seck ngir mu ñaanal ko ci bisam bii fa la yàlla na yàlla mottali barke yonent bi sala bàyyi jibee ngi noonu macha allah waaye Cheikh Jibril a ngi noonu jëm si ci xalifa bi ngir mu ñaanal ko yàlla su ko defee nag incha allah ñu àndandoon gunge ko ila Kajoor yàlla nañ ko def uh, at yu bari barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mi ngi noonu Baye Issa Diop a ngi noonu ci wetam Cheikh Diop waaw njaboot gaa ngi noonu waaw moo njabootu Serigne Cheikhou Amadou tabaarakallah macha allah mi ngi noonu waaw Baye Assane a ngi noonu tabaarakallah Baye Assane a ngi nii macha allah xalifa baa ngi noonu fas yéene ñaanal nag fa tabaarakallaahu Baye Cheikh Jibrilu ngir euh, Ila Kajoor mbokk yi mi ngi noonu ku ne xam na ne bis bi fa tabaarakallaa euh, bisu Canaba Kajoor bi Baye Jibi Seck moo ko moom tabaarakallaa Alaaji Gaye Sarr wax na ko léegi bu ñëwee macha allah euh, képp ku mu xam rek ak képp ku mu am rek fa tabaarakallaa dana ko gunge. kon mi ngi noonu macha allah xalifa baa ngi noonu Baye Assane yàlla na fi yàgg te ànd ak wér fas yéeneen ñaanal Baye Jibrilu Seck nag ñu gunge ko nag euh, préparé ko yoon yi moom ku ne xam na ni incha allah nee na du ma fa def dara du ma fa wax dara lépp Cheikh Jibrilu mi ngi sa loxo kon jiitu ma luñ fa war a wax nga wax ko luñ fa war a jëf nga jëf man su ma ñëwee rek damay ñaan incha allah mi ngi noonu ci kaddu yi Alaaji Ngagne Demba Sarr mi porte parole am tabarakallah mi ngi noonu xalifa baa ngi noonu gaa yaa ngi saafonte nag mi ngi noonu gaa yaa ngi saafonte Serigne Alpha Baye Serigne Talla Xaar mu ngi noonu ci yoon yi macha allah waaye tabarakallah waaw waa ndonga yéen kenn demul ñu des ñoom it macha allah ñu ngi noonu di nuyu xalifa bi fas yéene gunge Baye Cheikh Jibrilu tabarakallah macha allah Cheikh euh, Serigne Diaga Seck imam historien mi ngi noonu moom it ku ne xam na ko la Baye maam Tuutaan maam Amadou Seck ak sëñ Ibrahima Seck tabarakallah mi ngi noonu xalifa baa ngi noonu kon. ñun ñëpp rek ñu bokk waaw Cheikh Serigne Serigne Cheikh Wali mi noonu kon daal mën naa ni ñëpp rek fas nanoo yéene Serigne Allé ngi noonu tabarakallah di njabootu Cheikh Jibril Serigne Moustapha bu Baye Mori macha allah Serigne Talla Diagne waa kër ak njabootu Alaaji Talla Cissé ñoom ñëpp ñëw nañ macha allah ngir gunge Baye Cheikh Jibril kon su ko defee rek ngeen tàllal loxo yi xalifa bi ñaanal nu waaw Baye Jibi Baye Jibril nee na xalifa bi ñaan nga nangu na nee na sa ñaan nango na pour yàlla na yàgg a nangu. waaye yàlla na yàgg a nangu. te nga fekke lépp te nga fekke lépp. waaw kay Mori Mori njaboot gaa ngi nii. nee na njaboot gaa ngi nii. indi nañ seen i jëm. indi nañ seen i jëm. ak seen i xol. ak seen i xol. ak seen wërsëg. ak seen wërsëg. ak oto yi ak oto yi lépp doy na ak bàyyi sëriñ ak pas-pas yi. dafay raw de. yaa ma ko ñaanaloon fii nee na yaa ma ko ñaanaloon nag. moo ma ni woon moo ni woon. léppay mat nag léppay mat. kon na ñaanal sëriñ bi ne lépp. loo ma jox yàlla delloo la ko. waaw Baye Assane ne loo ma jox yàlla delloo. loo ma jox loo ma jox ci maqamam góor gu mag. sama borom dana la ko delloo Ibrahima ci maqam sëñ Ibrahima Seck ah, maa la ko wax bismillah ayca ah waaw El Hadj Pape ah. mu taaru waaw amin nangu leen ñaan su ñaanee ñëpp ku ne yëg oto amin آمين كرم الله بإطاعته آمين الله دخل في كنز الله وتمس يلا لا يلا سامو آمين سامولو آمين موري موني موري موني سندو سك سك جيرجيف كون بانغون الاج باجو جا واكاي باتام سان واكاي waaw mi ngi noonu bàyyi jibeegoo noonu nag léegi incha allah ilaa Kajoor ci kàttanu yàlla nag yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñu dem ci bismillah ñëwaat ci alhamdulilahi rabil alamina mi ngi noonu sëriñ Allé ngi noonu tabaarakala borom sañse bi laa ko tuddee waa lépp rek ngir macha allah Baye Jibi kontaan kon mi ngi noonu mbokk yi Baye Jibee ngi noonu mi ngi noonu mbooloo mi takku na foo ko foo ko natt wees na tabaarakala barke mag ñi barke sëñ ma dikkee waaye. équipe dem na démb équipe dem na tey équipe des na fi pour lenn loo xam ne ni bokk na ci gàmm gi fas nañ koo yéene wal ñi ga xam ne ñoo dem kon ñi ngi jaajëfal Thiénaba TV point com macha allah ci euh, exclusivité yi ak ci taxawaay yàlla na yàlla defar barke yonent bi salaay salaam caméra DG Alpha Sarr waxukaay bi El Hadj Pape Ila Kajoor. waaw doxal Ila Kajoor bu ma gëstu waat dama seet rek. mu nga taawal ma wax rek jaajëf.